de la famille et de la petite enfance. Je voudrais, à cet instant solennel, au nom de tous les maires de la région éponyme de Caprine, et en particulier au nom de El Hadji Moussa Alima de Médina Sanam de El Hadji Baye maire en exercice de la commune de Nganda au maire de la commune de Diamagadio les Baye sont les cousins de Cissé et mon épouse est une Cissé Je vous lui donner le nom de Sissa El Au nom de El Hadj maire de la commune de Kantok en exercice. Au nom de l'honorable jeune et courageux maire de Diokoul El Hadj Seck Diop, membre du conseil des Au nom, au nom du jeune maire qui vous a accueilli ce matin, je veux parler de El Hadji Taha Diané, maire en exercice du pays. Au nom de El Hadji Ousmane Ndiaye, maire en exercice de la commune de Boulel. Last but not least, au nom de El Hadji Mouhamadou Mansour en exercice de la commune de Gniby qui vient de prononcer la prière au nom du distingué ministre à la présidence monsieur le président en exercice du conseil départemental de Kaffrine je veux parler de monsieur le président Adama Diouf au nom surtout du futur maire de Kaffrine l'enfant chéri de Kaffrine l'homme de confiance du président Macky mon jeune frère mon candidat mon ami le ministre de l'urbanisme Abdoulaye Seydou l'honorable Amingar Nibi, député à l'Assemblée nationale, au nom de l'honorable vice-présidente du Conseil des collectivités territoriales, Madame Neysiga Faye au nom des membres du Conseil économique, social et environnemental, mais, mais, lu yëngu lu ne la ko yëngal la des enfants des familles et des femmes du département de Kaffrine je voudrais vous souhaiter la bienvenue vous madame la ministre du département pour ceux qui parlent de produits de société pour ceux qui parlent de construction d'un destin national, pour ceux qui parlent de ceux et celles qui sont au cœur des pulsions qui irriguent la vision politique du président Macky Sall, Madame la ministre, nous pouvons dire sans être démenti que vous avez le ministère le plus structurant, le plus influent pour le devenir du pays Je voudrais vous saluer également au nom de l'honorable député maire de Segrégata, El Hadji Pape Babou Ndiaye, représentant du de Birkelane, et des autres collègues. Vous souhaitant la bienvenue vous-même, accompagné des directeurs et chefs de services centraux de votre ministère, accompagnés de votre, des de votre cabinet, mais en présence, en présence, faut de la représentante de l'UNICEF, en ce jour historique, en ce jour symbolique de commémoration, de célébration du deuxième anniversaire de l'ancien de la Convention sur le droit des enfants. Madame, soyez la bienvenue. Vos sœurs et leurs enfants, ainsi que leurs maris, la société sénégalaise dans sa globalité, à travers Madame la ministre, vous souhaite la bienvenue ici et vous rendre un hommage mérité pour ce que vous faites. Madame la ministre, vous permettrez c'est vrai c'est des républicains mais ku dul wax manqu nit chaque manque day manqué madame le gouverneur représentant monsieur William monsieur le préfet représentant Moustapha Diaw préfet de Kaffrine yéen ak waa CRD ak CDD bu Kaffrine maa ngi leen di seedeel ci turu ñuy takk xàpp bokk moomeef ci Kaffrine seen dëkku ci liggéey bi nga di liggéeyal président ak gouvernement waaye seen orma ak yar ak teggin bi ngeen di jëflanteeg population bi maa ngi leen di nuyu wax ji nag damaa bëggul mu gàtt waaye bés du tuuti waroon lay tolloon bés bii bésu jigéen ñi Kaffrine la bés bii bésu Fodé loolu moo tax président de la république Macky Sall ñëwee ci économique ñaari yoon ne la ñi wax mu dégg ñi ko fi nekkal jottali ko président Macky Sall ne waxtu Kaffrine jot na lépp luñ fi sëmboon ko mottali. ko mënee mottali ci diir bu tàkk suñ ko mënta mottali daañu koo joyante dafa leen ba ngeen kontaan léegi nag ñëpp a ngi wër di waaye Macky Sall gouvernement am campagne électorale terewu koo liggéey bëgg bal terewu la liggéey mu ngi nii madame la ministre war na région Kaffrine fu mu dem jigéen ñëpp bëgg nañu maa ko fekkee Mbirkilaan maa ko fekkee Malémondar maa ko fekkee Suuf maa ko fekkee Naawreen déggi yi ñu ko fekkee mu ngi nii kon nag ñu ngi koy gërëm ci turu askanu Kaffrine ñu ngi koy ñaanal yàlla li mu wane ak ni muy liggéey président Macky Sall yàlla bu jiitu yàlla na ci ko mënal waaye ñu ngi président Macky ne ko ñun ñun fii ci Dóorén moom la ñu xam moom la ñuy xool moom la ñu bëgg suñu kilifa diine imaam yi kilifay tarixa yëpp moom la ñu joxañ suñu njaboot am nañu yar am nañu teggin gëm nañu yàlla wóol nañu yàlla foo mën di dem Sénégal mën nga faa gis lu fatt sa waaye boo ñëwee xam ne Abdoulaye Seydou Sow nekkul Sénégal ci liggéeyu Sénégal la nekk dem bitim réew waaye lu ko war ci Birkilane lu ko war ca Maïmouna lu ko war ak ñi mu àndal